mbégte ak bànneex la ñuy am yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci chaîne bii di Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa xibaar yi la ca gën a fës niki démb sunu naataango yee di sant limite daal nañuy seeti ki nga xam ne nag moom moo di Cheikh Bara Ndiaye di chroniqueur waaye itam nekk koo xam ne ku ñu ràññee la lool fii ci réewum Sénégal moom nag yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne nag moom moo di Bougane Gueye Dany ginnaaw kaddu yi nga xam ne nag yëkkati woon na ko ngir jëmale ko. ci ki nga xam ne nag moom moo di premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko di wax ne moom am na nu mu mel wurtu dugg fi nga xam ne nag moom moo di ci diwaanu Touba waral nag ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bara Ndiaye ne ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany dafa ñàkk teggin waaye itam dafa réew tekki itam amul benn per ndax ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko moo ko gën ci lépp waaye itam di wax ne ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany dafay politique ngir nit ñi bëgg ko waaye itam saa bu nekk dafay def loo xam ne nit ñi dañu koy gën a suufeel te Bougane Gueye Dany nag politique bi du ci jariñe waaye itam du ci jariñu ndaxte moom Bougane Gueye Dany dafa daal di ñàkk teggin ndax dafay yëkkati ay kàddu yu doy di ko jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ay kilifa fii ci réewum Sénégal yooyu la kàddu nag la ki nga xam ne moo di Cheikh Bara Ndiaye loolu la daal di yëkkati ginnaaw ba nga xamee ne nag sunu naataango yi seeti nañu ko.